Ok, on dirait que Babacar déggatuñu bon y avait Marie Bion si stage bi dem na waaw Marie Bion ñu ngi lay dégg merci euh, waaw dégg naa dama xawoon jàpp tuuti mais maa ngi doon déglu en même temps merci beaucoup réponse bi claire na merci ñoo ko bokk ñoo ko eh, ñu ngi nuyu salaamaaleykum salaam la jaajëfal si si room bi bon question bi ma amoon euh, dama gis benn benn genre box comme genre routeur gars dañuy def euh, minage ma xam ndax su classé hélium ma xam may laajte ndax loolu est ce que expérimenté ba xam c'est viable rentable aussi euh, ñoom est ce que xam nga ban kii lañuy utiliser ban protocole est ce que la wala proof of stake wala ban ban bon consensus quoi. bon je pense pour of work lañ wax proof of work. proof ak benn box. genre box ñoom noonu lañ ko tuddee quoi léegi c'est euh, utilisateur bi da koy installé su këram par exemple connecté ko avec internet. Mm-hmm. après je pense dina commencé si lay commencé minage mais euh, li ma jot a lire daf mel ni minage bi c'était une collaboration lay doon entre réseau bi ne si réseau bi yëpp. waaw minage bi c'est toujours comme ça mais est-ce que c'est open source. je ne pense pas parce que xaaral xaaral ma xoolaat oh, ok parce que lu mu mettre en parallèle ak bitcoin y a projet boo xam ni temps yii yëpp gars yi dañ ko doon coow lu bëri. mais ñoom ils font pas minage ils proposent à nit yi ñu am benn full maanaam benn boo xam ne day am transaction bitcoin yëpp projet boobu mu ngi tuddoon Umbrel euh, mais il y avait eu beaucoup de critiques parce que ñoom déjà c'était pas open source et étant donné que c'est source doo xam nax y a des backdoor maanaam des portes dérobées yoo xam ne ñoom installé nañ ko ci ci hardware bi pour mën a ñëw par exemple benn attaquant jóge ci gannaaw soxlawul sax clé privée ñëw rek jël say bitcoin tu vois su fekkee da nga ko fa garder aussi personne n'a la possibilité de savoir est-ce qu'ils n'ont pas mis là-bas des cookies wala yeneen genre type de programme yoo xam ni day def voilà historique yow lépp li ngay def ak sa në tu vois donc loolu mooy peut-être danger bi quoi après je pas na xool nga détail bon non non non xool xooluma détail yooyu noonu parce que dama gisoon projet bi noonu. Hmm. ah hmm. pour for euh, work. oui oui vas-y. puisque man moom euh, côté blockchain bi souvent damay damay aspect traditionnel bi toujours lay xool quoi. aspect hmm. décentralisé bi surtout gouvernance bi. exactement doone am ñoo xam ne dañuy nekk derrière di di ñoom rek ñooy proposer euh, des choses. man j'aime pas moo tax toujours à part bitcoin benn altcoin laa leen mën laa yor comme token mais à par ça du ma utiliser euh, yeneen yu si bëri si donc du coup pour te faire une propre ta propre idée de qualité wu projet bii nii renseigne-toi sur plusieurs choses benn bi mooy équipe bi nekk ci gannaaw c'est qui est-ce que ce sont des gars yoo xam ne ce sont vraiment des spécialistes de du truc là quoi. Est-ce que ce sont des gens qui ont bossé déjà dans d'autres projets liés à la crypto-monnaie boobu mooy premier bi deux est-ce que c'est open source trois est-ce que ñoom genre nan lañ ñëwee est-ce que benn fonds d'investissement moo leen jox xaalis wala est-ce que dañoo def ICO wala genre affaire yooyu te suñ ko defee c'est-à-dire ñaata part lañ jox maanaam peuple bi quoi tu parce que projet yu bëri je sais pas ndax dégg nga Solana temps yi gars yi dañ koy lu bëri Solana. il paraît que c'est très centralisé. extrêmement centralisé parce que fonds d'investissement yi ñoo si dugal seen xaalis à hauteur de quarante pour cent au moins avant sax ñu koy mettre sur le marché tu vois donc projet yu e mel noonu bëri na après voilà quoi je te laisse faire tes tes propres recherches quoi incha alors là on est au bout de heure quarante cinq de wax. Euh, ouais <laughs> donc euh, je sais pas ndax gars yi dañuy am une allo ba da waaw bon par rapport ak Babacar bi moom presque romb ngeen ko bon je ne sais pas sax ndax dina ci sawar mais juste pour vous dire que c'est c'est mon supérieur hein il a été mon supérieur ñoo commencé ndoo affaire bitcoin mais c'est un spécialiste des domaines et des impôts quoi affaire yooyu fiscaliste <laughs> léegi bon xam naa nag looloo taxoon mu doon poser ce qui concerne l'agriculture et la blockchain quoi. pourtant tontu ko. voilà voilà bon dama xaw a côté boobu. léegi par rapport ak euh, MRI bi doon wax ci Helium bi. Helium bi je ne pense pas que ça soit proof of work ni proof of stake. ñoom beneen technique la ñuy utiliser ils utilisent euh, benn genre kii boo xam ne comme kii wifi lay nekk. j'oublie le nom benn comme modem wifi lay nekk voilà comme routeur la et tu permets aux autres de te connecter à ton réseau di connecté wu léegi nag il plus il y a de de de sur cette zone plus euh, taux de hachage bi di kawe mais aussi plus rentabilité bi di kawe c'est comme ça que fonctionne Helium donc so jëlee ay zone comme zone Afrique fii Euh, doo am rentabilité par contre soo demee zone Europe zone États-Unis bi da ngay gis ne euh, rentabilité bi fa la ëppee doole bon loolu laa jot a xam euh, tuuti si hélium bi jot naa ko xool noonu def si kii bi mais technologie bi ñu utiliser la xaw a fàtte tuuti quoi mais ay genre kii lay kii léegi nag gars yi lu ñu doon gën a posé wu question mooy est-ce que tamit foofu par rapport toujours à la sécurisation des données personnelles la ñi ñu doon laajte est-ce que am na sécurité ou pas Euh, euh, loolu laa jot a xam daal ci Elia. mais tu sais système bi nga wax ni de juste ay nœud parce que au final ce sont des. des nœuds la quoi mèche euh, je pense pas parce que mèche soxla internet. mais en ñoom ok système bu ñu wax nii de un routeur par exemple xam donc benn hardware boo xam ne dafay lié ak yeneen ak yeneen mais loolu c'est juste des nœuds xam nga de réseau peer to peer donc au final xaw ma système bi mais je me dis du coup en fait c'est projet bi lan lay offrir quoi comme perspective c'est quoi genre on va faire ça mais pour régler quel problème parce que au final loolu moo am solo c'est pour régler quel problème quand il y a Ethereum Solana et cetera c'est pour régler quel problème tu vois lu ma wax si si man loolu man man mi sax jotuma lire nag white paper bi quoi. Mm. mais man tamit je me suis la même question su fekkee ne moom looloo ko tax a jóg donc c' est pour régler quel problème régler le problème de bitcoin comme problème mu énergivore yi wala lan man tamit moo tax ma ne nañ ko soulever xool ba xam qu' est ce que ça donne ndax am na ku ko maîtriser fi ah malheureusement non malheureusement donc du coup ah tout le monde si a wax. waaw man dama que dafa am lu mu wax mooy routeur bi quoi te ñu si bëri mën nañ si connecté léegi dama bëggoon xam ndax boo bëggee connecté si routeur bi dafa am moo de passe boo xam dañ koy jox wala la ku si nekk mën na si dugg. bon si ay trop information de euh, si projet bii nii. xam ne dañ naan. free wifi yi c'est pas sécuritaire. Ah, parce que nit mën <laughs> ah, na si dugg xam li ngay def sax. lépp moom bu fekkee mun na créer benn duplicata buy utiliser comme pineapple wifi. day hmm. bind même tour bi. def ki comme ça yow boo juumee rek mën na dupliquer lépp loo xam si vrai wifi bi yow la connecté si biir lay dugal say mot de passe mu koy xam yooyu yëpp. moo tax may laajte ndax am na code wala amul code balaa ñuy développé si yow. effectivement c' bon après gars yi ñoom dinañ dafay recherche sûrement beneen room on va en parler incha allah donc di di di jox la parole à Sousi. Sousi salaamaaleykum waaleykum salaam. ben man damay annoncé wu balaa ma je pense que tout le monde ak Baye di doon xam ci man dara jëm man moom. Euh, économie <laughs> économie nga jëm ko finance <laughs> biir finance. voilà kooku xanaa benn benn ru xaar nga tontu ma mais xam naa ne doo gis parce que on n'est pas amis. oui malheureusement j'ai pas encore vu. Exactement. Mais juste, man, moment, euh, je, je préfère app, euh, apporter la contradiction. Je sais pas, je ne sais pas comment mais euh, man, foofu la quoi. Donc, D'abord yéen yéen a may wax est-ce que je peux développer ou pas. mais lay déglu c'est ouvert a tout le monde non non non vas-y ñu ngi lay déglu. voilà donc ñu <coughs> dem mais dama dama xool man bi ma xoolee kii bi en vous entendant parler vous êtes vous êtes euh, tous fii ici euh, plus des nu mu koy waxatee sax des informaticiens si je me trompe pas. non man à la base je suis financier hmm. effectivement. ok financier donc yow bi ñu lay laaj stratégie d'investissement ci Bitcoin nga ne la patience tout court. non non non dama ko joxoon conseil parce qu'ils m'ont de DCA genre dollar cost average et cetera parce que ah, dama def avant loolu <coughs> oui oui j'ai de patience effectivement parce que dama def euh, en fait il y a deux types d'investisseurs il y a les pas deux types mais principalement da nga am traders yi qui font du day trading. donc ñooñu la plupart du temps dañuy dem def ay analyse technique di def ay charte ak yooyu donc di jël seeni gain dans la journée wala même à l'instant après nga am nga les investisseurs long terme donc quand je dis il faut rester patient man je parle du fait que Bitcoin c'est plutôt réservé aux investisseurs de long terme parce que trading bu ko particulier di def dafa nar a xeex si géew bi ak des traders professionnels donc moo tax man je conseille jamais trading quoi loolu ok da da da nga wax lu am solo analyse technique dañuy def ay analyse technique basée sur quoi man je pense que sooy def analyse technique c'est basé sur mooy valeur espérée mooy euh, li li nga yor euh, mooy je je veux dire euh, actif bi ngay investir valeur espérée future est-ce que day yéeg est-ce que day wàcc à quel moment lay yéeg a quel moment lay wàcc lu koy yéegal lu koy wàccee donc soo soo mënee am benn maîtrise ci analyse technique boobu boobu ngay mën a xam à quel même si c'est à long terme à quel moment retirer ton argent wala à quel moment xam nga euh, investir parce que c'est au plus bas de du prix ainsi de suite loolu laa loolu laa jàpp loolu mooy euh, euh, <clears throat> analyse technique finance maintenant man su ma su ma su ma bi may déglu depuis tantôt damay dégg tout le temps c'est plus yaa ngi ma naan financier nga mais j'ai plus entendu le le l'informaticien qui veut venir euh, révolutionner un peu le monde des finances et surtout de l'économie mmh. décentraliser tout maintenant la monnaie n'est plus euh, détenue n'est, n'est plus régulée par un gouvernement mais par des personnes hein? et euh, quand tu me dis que financier nga ba pare tu tu approuves une monnaie qui peut aller de 3 mille à 19 000 en, en, en un moins de temps, de 19 000 à trente et quelques mille en un moins de temps, de 30 quelques mille à 80 et 70 000 en un moins de temps, loolu mooy tout simplement hyperinflation. donc suñ koy nangu ci monnaie rek mooy on est on loolu foutu loolu hyperinflation la mooy monnaie boo xam ne ni day di wàcc xam nga à des à des pourcentages énormes sans que ñu mën a taxaw effectivement taxaw ne lii moo tax mu yéeg lii moo tax mu wàcc. loolu ci ci côté monnaie bi léegi suñu demee ci côté actifu bitcoin un actif li koy yéegal ak li koy wàccee <coughs> mooy sa capacité à créer de la richesse à créer de la valeur euh, suñuy jël finance euh, euh, bi ñu xam dañuy ñëw ne ok entreprise tel entreprise lu tax ay kiiwam di yéeg ay actifam action di yéeg et tout cela c'est parce que peut-être am nga benn information mi ngi créer mi ngi ci recherche développement di créer benn produit boo xam ne ne day révolutionner un peu euh, le besoin des gens te dina dina dina yéeg di nit ñi dinañ ko soxla donc forcément cette entreprise am na valeur léegi nit ñi ci loolu la ñuy gis jënd ko day mel ni Apple balaa avant muy créer ces ces fameux téléphone amul euh, action yi tollu woon noonu mais bi mu ko créer ba nit ñi di utiliser produit bi soxla ko naturellement ay action am di yéeg te nit ñi dañu gis ni que day dem de l'avant parce que il fait de la recherche de de développement di génne ay produits yoo xam ne nit ñi dañ koy a di soxla donc dañ koy jënd mais <clears throat> de l'autre côté suñu su nit ñi njortee rek am na keneen ku ñaar a ñëw créer loo xam ne ne ah day surpasser Apple nit ñi ci ci loolu lañ jëm naturellement yow mi njëkk am information bi ci da ngay daw jënd ay kiiwam da ngay dem jënd ay action am tout en s'attendant que day yéeg exemple boobu mooy Apple ak IBM a il quelques années de cela nit ñi IBM lañ gëmoon mais xamoon Apple dëgg daw na jënd Apple kooku moo ci gagné mais action dafa am fu muy yem dafa am fa benn instant euh, ay niveau maximal yoo xam ne su fa tolloo day kii mais xam nañu lu ko yéegal xam nañu lu ko wàccee man à chaque fois damay déglu gars yi di wax ci bitcoin du la wax la moo yéegal bitcoin la moo ko wàccee ah ils te disent que c'est ba pare monnaie boo xamee il se permet de de de de monter drastiquement ou de descendre drastiquement mooy hyperinflation bi ñuy waxati donc euh, man daal j'ai comme l'impression li xew ci bitcoin ak ces crypto monnaies là mooy dafa mel ni rek ma jox benn benn exemple mooy dañu ñëw trouver benn robot boo xam ne si c'est super précis précision lay dox ba lépp précis ci moom rek ñu ñëw ñu ne ok comme que ki ko c'est un roboticien wala c'est un informaticien boo xam ne ne il est calé dans ce qu'il fait ñëw rek après comme te trouvé na loolu on va éliminer les médecins on veut plus leurs avis dañ leen di éliminer léegi comme te le robot est ku ñuy opérer yëpp robot bi xam na lu mu war a dem jëli da koy dem jëli mais robot day rayee nit rek parce que médecine dafa am ay ay yoo xam ne dafa am fi ngay jaar kii bi pour dem jëli ko ainsi soo éliminer les médecins rek da ngay indi problème soo ci dugalee les médecins ñoom ñuy utiliser précision robot boobu da ngay yokk la médecine man nag foofu mooy sama problème avec ces gens la de crypto-monnaie mooy dañu ñëw bëgg éliminer tout ce qui est économie et finance ñoom pour ñoom dañ lay bokkatuñ ci nous qui ont créé ça on va révolutionner le monde on va refaire xam nga l'économie on va refaire les finances à notre guise yéen li ngeen di wax yëpp dootul amatul sa ça n'a plus de sens nii lañ koy defee ma loolu mooy ciy sama problème te pourtant Babacar laajte na am na leen lu important lu mu laajte mooy blockchain bi blockchain moom ñëpp xam nañu que avenir bu rëy la am ci kii mais ces crypto pour mu am avenir il faudrait que ça soit détenu par des gouvernements <coughs> yu jéem a ca ça ça devient de la monnaie électronique mu effectivement rapidité pour monnaie bi gën a di di bouger dina gën a gaaw mais quand même une monnaie il faudrait que ñu xam kan moo ko détenir nan la ko déteniree fan fan la jaar fan la kii sinon li ngeen di wax nii naan nit ki euh, euh, say banques yi dañuy denc say données et tout yooyu donc amatul mooy def katu saay-saay bi sax mën na détenir def lu def euh, ay transaction yoo xam ne ne c'est pour acheter des nucléaires wala kii te kenn du xam lu xew après ñu xëy la tàq taal àdduna bi ñu dem seen ki man loolu yooyu laay bañ na ci ci ci li ngeen di wax yépp man li may gis mooy pour que ça ait de l'avenir il faudrait que ça soit détenu par de euh, gouvernement ñu gérer ko ah et que ça puisse ah suivre les règles de l'économie et des finances parce que règles yooyu fii ba àdduna di dem ah man gëm ma ni règles yooyu ñu ñëw effacer ko y des choses yoo xam ne ne moom du du deñ ñu tegu ci day mel ni rek nga ñëw nga ne ma les fondamentaux de l'informatique dañuy ñëw teg ko na le léegi euh, ça ça vaut plus rien dañuy dem ci leneen gëmuma ko on peut on peut avoir de de de mën nañu développer wu mais y a des fondamentaux yoo xam ne day des ci fondamentaux yooyu la ñuy dem ci base yooyu la ñuy demee pour continuer on peut pas les les en cause ngeen jéggal ma nag. ah noo amuñ dara lu lay jéggal intervention bu très intéressant parce que au final li moo tax débat bi neex ku nekk tu pour ou contre et chacun amène ses arguments et au final mu nekk débat d'idées et pas forcément par rapport à voilà quoi lii ou lee et donc j'ai noté plusieurs choses en grand et si tu peux me permettre me répondre le point par point au début tu as parlé de hyperinflation nga ni bitcoin c'est une monnaie hyperinflationniste au final parce que soo gisee nii mën na jógee trois mille dollars dem dix neuf mille dollars dem soixante mille dollars et cetera mais au final bitcoin n'est pas inflationniste c'est déflationniste je m'explique monnaie yi ñu yor ñun ay ñoom CFA euro dollar ainsi de suite ñoom ñoo inflationniste ñoom ñoo instant yi ni hyper inflationniste démb euh, pas démb semaine dernière xawma si biir semaine bi la gars yi génnee statistique wu inflation yi aux États-Unis Biden dafa ni pour cent mais bon on connaît les politiques man je le multiplie par deux au minimum une inflation de quinze pour cent sur cette année seulement aussi beneen statistique dafa génn mu ne le dollar a perdu environ quatre-vingt pour cent de sa valeur depuis sa création quatre-vingt pour cent de sa valeur maanaam li nga mënoon jënd ab mille dollars euh, à l'époque euh, bu muy doog a génn en fait il faut le diminuer de quatre-vingt-cinq pour cent donc monnaie yi ñoom ñoo inflationniste ñun gis nañ ko depuis bu ñu nekkee xale li nga mën a jënd ak cent franc bu ñu nekkee woon xale tey mënoo ko jënd ak cent franc alors que bitcoin c'est le contraire si tu pouvais t'acheter on va dire un vélo avec 1000 bitcoins, avec, bon, si tu pouvais t'acheter un vélo avec un bitcoin il y a 5 ans, aujourd'hui, tu peux t'acheter une voiture avec un bitcoin. Donc, bitcoin, c'est déflationniste. Ça prend de la valeur avec le temps. Alors que nos monnaies sont inflationnistes, elles perdent la valeur avec le temps. Et pour l'OLO, euh, en fait, le truc le plus simple, moi, un livre que je conseille ici tout le temps, qui s'appelle L'histoire des banques centrales et de l'asservissement de l'humanité. Kikabinde, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Afrique du Sud. c'est hallucinant c'est-à-dire que loolu ça vient si benn point bi ngeen wax mooy que le les gens de la crypto entre guillemets ils viennent pour changer le système financier qui est déjà établi mais grand ñun on a appris la finance de marché et si biir finance de marché boobu noonu on a appris l'histoire en fait des crises financières parce que man sama métier c'était gestion des risques on était là les traders donc historique finan euh, crise financière yi mais ça a toujours été les dérives de la finance classique mooy lan mooy politique interventionniste bi nga xam ni moom la banque centrale yàgg a def di imprimer des billets tout le temps tout le temps tout le temps étant donné que tu imprimes des billets tout le temps l'argent à circulation c'est trop étant donné que ça ne descend pas à la population prix yu lépp day yokk et donc ce n'est pas c'est pas en collaboration avec peut-être augmentation wu salaire yi wala bésu impôt yi wala lii wala lii donc <coughs> pardon politique monétaire u état yi moo ñu jëmalee fii mais aussi mauvaise gestion wu banque yi moo indi crise 2008 après on a vu la crise des années 30 bu ñu jugee ci loolu nga am choc choc pétrolier bi nga xam ni benn instant tamit créé woon na fi benn crise la moo ko waral devise le dollar moom moo doon téye pétrole wala pétrole moo doon téye dollar ça va dans les deux sens donc si le pétrole va mal le dollar va mal or le dollar c'était la monnaie en fait du commerce international donc tout le monde va mal mais dérive yooyu noonu yëpp nag moom le bitcoin di jéem a ñëw entre guillemets euh, voilà quoi solutionner en sachant que man sama avis mooy que bitcoin ça va tout le temps être à côté de monnaie nationale yi de crypto monnaie nationale yi mais ça c'est un Tu as parlé de concurrence aussi. Bitcoin, depuis sa création, a eu des concurrents comme autres crypto-monnaies. Et je précise que Bitcoin n'est pas la première crypto-monnaie qui a été créée. Among ay Bitgold, eGold, Among ay euh, euh, B-Money, etc. Mais crypto-monnaies yoyu non yep, elles ont échoué. Pourquoi? Parce qu'il y avait des entités centrales derrière. Et qu'au final, à chaque fois que tu vois une entité centrale, tu vois une dérive. une dérive d'autorité, mais aussi une dérive au niveau de la gestion. Donc, et c'est beneen question, question bu intéressante bi nga posé. Tu as dit, qu'est-ce qui influence le prix du Bitcoin? Mais ñun, on peut te le dire, tu as posé la question, on va te le, va te dire. Bitcoin, chaque, on va dire, chaque dix minutes en moyenne, benn mineur su trouvé benn bloc, si le benn Bitcoin di créé wu. Et instant boobu noonu. moom mooy première étape bi c'est la loi de l'offre et de la demande puisqu'il n'y a que six virgule vingt cinq bitcoins actuellement qui se créent toutes les dix minutes da nga koy mettre en parallèle avec la demande mondiale de bitcoin toutes les dix minutes elle est extrêmement supérieure à cette offre là donc ça veut dire que le bitcoin est rare par rapport à la demande mondiale donc c'est normal que le prix augmente mais beneen bi mooy les spéculateurs jour ba le démb laa doon expliquer ay nit man leen ñun les gens lambda on utilise les devises pour faj suñuy soxla CFA dollar euro et cetera dañuy jënd dañuy jaay dañuy yónnee mais tu as des traders professionnels qui spéculent sur le sur ces devises la ñoom dañuy gagné xaalis sur xaalis mais bitcoin c'est pareil da nga am nit yoo xam ne dañuy utiliser bitcoin mais vraiment pour faj seen soxla pour yónnee pour jot. pour épargner, pour investir, mais am nga ay spéculateurs te spéculateurs yooyu noonu ce sont les fonds d'investissement et justement de la même manière que j'avais pris un étudiant pour ñu étudier minage possibilité wu minage au Sénégal j'avais aussi pris un étudiant à la CESAC bu def finance pour ñu étudier en fait affaires yi nga xam ni ñoom ñooy influencer le prix du bitcoin et sur le plan des investisseurs institutionnels su ma nee investisseurs institutionnels ce sont les États ce sont les fonds d'investissement, ce sont les entreprises privées. Mais grand, est-ce que Hamgani, aujourd'hui, tu as des entreprises qui détiennent du Bitcoin dans leur trésorerie Est-ce que tu sais qu'il y a une entreprise qui s'appelle MicroStrategy qui détient pour 3 milliards de dollars de Bitcoin dans sa trésorerie et il communique ça de façon officielle Là, j'ai les chiffres en face de moi. Tu as 1 million 494 000 bitcoins qui sont détenus par soi des États, soit des entreprises publiques, donc des entreprises étatiques, soit des entreprises privées. Et ça représente 7% des bitcoins en circulation. Et moi, je me suis posé la question, bi ma ñëkkee gis loolu, entreprise ma lay wax nii, ça s'appelle MicroStratégie. Je me suis dit, mais le gars, déjà, il est pas bête parce que son entreprise, c'est des centaines de milliers de salariés dans le monde. Il a un conseiller financier, il a un comptable, il a un DAF. Et ñëpp, ils sont d'accord pour prendre le bitcoin Depuis qu'il l'a fait, ça fait un an, les bitcoins ont pris, on double, en fait, ont pris 2,5, tu vois, euh, ont pris 200%, quoi, en gros. Donc, l'OLEP, ça explique ceci. Pourquoi les gens s'intéressent à Bitcoin? Parce que ça répond à plusieurs problèmes. Toi, tu as parlé de CBDC. Tu dis, crypto-monnaie, bala mo bah, mon état. Si c'était vrai, du ñu yegg ci période bu ñu nekk nii mi nga xam ni ku nekk dangay kaas que lépp dafa cher ku nekk dangay kaas ni CFA bii nii mënul génn ci dëkk bi chaque fois sénégalais suy voyager il est obligé de faire le change et saa yuy def change day perdre xaalis ci biir loolu ku nekk dafay kaas ni les gens qui sont à l'extérieur sont plus riches que les gens qui sont à l'intérieur du pays pourquoi Parce qu'à l'extérieur, en France, par exemple, le salaire minimum, c'est 1200 euros. Presque 800 000 francs CFA. Au Sénégal, le salaire minimum, c'est quoi? Pourtant, pourtant, on paye euh, <laughs> plus cher même un produit au Sénégal qu'en France. Donc, on gagne moins, mais on dépense plus. Donc, on est plus pauvre. Donc, l'OLEP, c'est le résultat d'une politique monétaire de État de banque centrale pendant des années. et pour finir sur un point bi nga waxoon nga ni la fekk en fait xamuñu kan moo nekk ci gannaaw bitcoin ça va inciter à une mauvaise utilisation par bandits et cetera au tout début na sànq bi ma doon expliquer affaire de taproot bi ma ni maintenant ça va plus permettre à des entreprises en tout cas ça va rendre difficile à des entreprises comme Chainalysis TRM Labs et cetera ñuy mën a def ay statistiques di mën a suivre transaction wu nit yi justement ñoom. Ils ont étudié en fait pendant toute l'année 2020 l'utilisation au Bitcoin et ils ont établi que seulement 0,3%. Je répète, si vous voulez, je peux te donner ce document-là, je l'ai en ma possession. 0,3% des bitcoins sont utilisés dans des activités frauduleuses. Mais lolo c'est énorme, c'est incroyable. Genre, c'est devenu en fait, euh, devenu contradire discours boo xam ne c'était là depuis des années et même man j'ai travaillé en banque combien, combien <laughs> avant Bitcoin comment faisaient les gens pour blanchir de l'argent c'était les banques même avec Bitcoin blanchiment d'argent suñ ko doon wax ci banque yi c'est énorme donc grand man li moo nekkoon grosso modo sama réponse après je sais pas ndax yow tu as d'autres choses ci bëgg yokk wala keneen lu mu ci bëgg a mais yow ah on dirait Babacar dafa amoon lu mu bëgg a wax Oh, merci beaucoup, Nourou. hein. Les réponses ont été claires, précises. Et voilà. Euh, maintenant, peut-être euh, pour rebondir rek, moom président <coughs> bi muy wax aussi hyperinflation, li mu doon wax, euh, il faisait référence juste à la volatilité extrême quoi, de, du Bitcoin. Et que loolu ñun ñëpp euh, reconnaître nañ que aujourd'hui c'est un problème quoi. Donc euh, maintenant, il faut le dire hein, euh, d'ailleurs euh, bu fekkee ne état yi sax ak yenn kii ñu koy xeex, euh, un peu lié au fait que quand même. c'est une monnaie euh, très volatile parce que mënoon na jógee un dem dix jógee dix suba wàccaat cinq euh, voilà ce qui fait que bon loolu euh, quand même c'est un problème en fait pour un investissement boo xam ne nii qui est <coughs> stable quoi au moins euh, maintenant beneen point bi aussi euh, ça va concerner un peu le fait que aussi les États ak banque centrale di intervenir quelquefois pour euh, réguler un peu euh, wala di di créer de la faire de la création monétaire sur du néant c'est que bon euh, dañuy toll ci situation yoo xam ne yoo xam ne nii les états sont obligés de le faire parce que bu ñu ko deful c'est la c'est la catastrophe Euh, par exemple crise financière 2008 bu bi mu amee banques yi état yi bu fekkoon ne defuñu production de liquidité massive euh, voilà euh, on allait vers une économie mondial boo xamante ni ça serait vraiment la catastrophe et même événement bu récent bi ñu mujj vivre mooy le cas du avec euh, le coronavirus là je crois que nekkoon nañ ci benn niveau d'arrêt boo xamante ni euh, si les États n'étaient pas venus au secours pour euh, imprimer des billets massivement soutenir les les entreprises ak kii def ay rachats massif d'obligation voilà on partait également vers la catastrophe hein, parce que il suffit que tout le système bi nga xam ne ci la kii bi économie mondiale bi reposé euh, après voilà euh, c'est c'est le désastre maintenant yooyu peut-être man aspect positif bi ma ci gis euh, mooy un peu le fait que ce, cette création monétaire boobu man euh, am na benn bien vrai que am na côté négatif parce que ça crée de l'hyperinflation comme tu le dis mais au-delà de ça peut-être nu ñu mënee xool mooy euh, la li muy li muy yàq est-ce que moo ëpp li muy defar quoi maintenant pour man côté boobu euh, lañ ko war a mën analyser euh, bon pour le cas de microstratégie aussi euh, je suis entièrement d'accord hein bon maintenant léegi peut-être moom aussi son entourage <laughs> j'avoue que j'ai j'ai j'ai <laughs> lu quelque part que même bon son entourage n'était pas euh, bien vrai que ñu ngi koy suivre ci ci ci folie yi kii am outrancière am boo à du bitcoin du bitcoin euh, comme ça bon et que ñoom mais derrière quand même y a y a des réticences et que ñenn ñi sax euh, ñu ci bëri en tout cas sur son entourage proche ñi nga xam ne amoon nañ ay actionnariat ci kii bi ñu ngi commencé di di délester wu un peu de leur de leurs actions au sein de MicroStrategy quoi parce que bon nee nañ ils pas un peu voilà euh, folie outrancière bi waa ji pour vouloir chaque fois di bon mais man euh, voilà je euh, je ne le combats pas man voilà c'est c'est c'est une situation qui est là euh, mu ciy profiter c'est tout comme nous tous d'ailleurs donc même bu fekkee ne derrière am na ay côté négatif ci bitcoin bi ñoo ñun ñëpp li tax ci investir c'est parce que juste on veut profiter d'une aubaine qui est là et voilà mun nga ci dugal tey cent voilà dans deux ans trois ans tu te retrouves avec mille bon ça ce sont des expériences yoo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy dund même Euh, d'un point de vue purement économique en réalité problème bi foofu la nekk quoi le fait que une monnaie puisse quitter cent aujourd'hui <laughs> même pas voilà, au bout de quelques mois quoi parce que 2020 c'est ce qu'on a vécu de quelques mois on est passé de xaw ma je sais pas on est passé rapidement ay 63 000 dollars donc euh, loolu noonu cette volatilité extrême boobu pare xëy benn suba rek ci tweet euh, de Elon Musk wala je sais pas <laughs> voilà wala la Chine ñëw bind na non on interdit le minage des choses comme ça quoi xëy rek cette affaire bi collapsé gravement perdre rapidement ay cinquante pour cent donc yooyu aussi c'est c'est un problème d'où la nécessité même ñu réguler ko et que état yi pour man foofu lañu jëm bien vrai que actuellement ñu ngi accepté parce que li tax ñu accepté mooy ils sont dans une logique euh, d'apprentissage toujours boo xamante ni pareegul mooy que ne comprendre réellement le fonctionnement de cette monnaie le soubassement qui est derrière des choses comme ça maintenant au fur et à mesure ñuy dem bu ñu demee ba am une maîtrise parfaite euh, euh ils vont réguler naturellement parce que volatilité bi moom gaw ma ne dans le long terme day nekk loo xam ne day day perdurer quoi donc tôt ou tard les États vont vont vont intervenir pour réguler à commencer par les États-Unis nga xam ne aujourd'hui ñoom euh, ñu ngi ci politique wu réguler euh, tout ce qui est stable coin parce que comme yooyu la ñu gën a am <laughs> maîtrise ils voient que ils font les mêmes choses que que que que, les banques euh, même rôle bi la ñuy jouer que la monnaie ak derrière bon euh, amuñu benn vue amuñu benn maîtrise ci kii donc l'idée aussi c'est c'est de les réguler donc ñoom c'est c'est à l'étude aujourd'hui je crois que bu ñu paree ci stable coin puisque moom moo gën a accessible actuellement pour ñoom buñ ko buñ ci paree naturellement ils vont Euh, vers le bitcoin bien vrai que man je suis pas gëw ma ne mën nañ dinañ ko interdire parce que actuellement bitcoin yegg na benn niveau boo xam ne bon voilà interdiction c'est c'est impensable maa ngi doon déglu keneen koo xam ne aussi muy wax naan euh, que bon euh, si tu remontes à des années il y a longtemps je sais pas des années trente je sais plus quoi que voilà le bitcoin détenir de l'or Euh, était considéré comme, comme, comme un crime. Quoi. Ça arrive quand tu, Exactement. Es, tu, tu, tu, es un c'est interdit. aujourd'hui mm. ñu dem ba or nekk réserve de valeur bi nga xam ne c'est la première réserve de valeur boo xamante ni peut-être nit ñi en cas de crise ci ci la ñuy recourir pour pouvoir euh, rawale un peu seen seen seen ay avoir quoi et que euh, bien vrai que tey bitcoin aussi mu ngi commencer di jouer ce rôle vu bon récente hausse bu mujj bii nii nii ci jour yi peut-être les gens disent que c'est lié au fait que voilà euh, comme il y a le, le, le tapering qui va intervenir incessamment donc voilà Euh, l'inflation va s'en suivre naturellement. Donc, euh, après, c'est quoi Les gens fuient un peu vers le Bitcoin pour euh, réserver, préserver un peu leurs leur, leur, leur, avoirs, quoi. pour dire que, bon, de façon un peu résumée, bon, c'est un peu ça, quoi. Je suis avec vous deux, hein, des deux côtés. maa ngi nekk maa ngi ko am benn tànk, quoi. Mais euh, que, voilà, bu ñu boolee ñaari camp yi euh, naturellement mën nañ trouver benn point d'équilibre boo xam ne bon euh, qui va arranger tout le monde aussi bien les États euh, les les les personnes physiques ak voilà ñi nga xam ne ñoo nekk à au, au milieu à savoir les intermédiaires donc les financiers banquiers et autres quoi merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup ci intervention bi grand Babacar avant ma lay jox parole bi grand souci et après ma répondre grand Babacar je vous annonce que dimanche prochain incha allah à la même heure on aura monsieur Abdoulaye Ndiaye donc il est économiste assistant professeur à l'université de New York et grand spécialiste de Bitcoin donc du coup dinañ mën a gën a xóotal ak moom ces questions de économie et Bitcoin merci grand Babacar balaa ma lay tontu ma jox la parole à souci waaw ok <coughs> mais Babacar Babacar da wax lu am solo léegi mooy euh, que les états sont en train d'étudier <coughs> Bitcoin et tout cela c' est vrai ñu ngi koy étudier y' a pas que les états même les grandes banques ak en tout cas les banques qui sont sérieuses partout dans le monde léegi duñ ko wax mais ils ont des départements qui étudient la chose te man li ma gëm mooy <coughs> est une technologie qu'il ne faut pas laisser s'échapper mais li ma gëm encore une fois mooy que une fois que ñoom ñu étudier ba comprendre les rouages de euh, ces cryptomonnaies la dina dinañ ko jëlaat en main et ça va être autre chose que ni muy demee parce que <clears throat> on parle inflation le mot même est trop faible pour man parce que so soo leen xoolee mu jóge dix neuf mille neuf cent dem ba janvier mu dem quarante deux mille euh, ngi ay soixante et quelques donc c'est des inflations yoo xam ne ne bul xam Nourou yaa ngi fiy wax inflation wu euh, dollar depuis sa création euh, quatre-vingts pour cent de sa valeur n'est-ce pas mais sa création c'est depuis quand les années mille sept cent c'est normal day day dina am inflation mais inflation avec avec le temps ñoo ànd ah, chaque année bu leen da ngeen di xaar inflation mais yow da nga je pense que da nga jaawale benn inflation monétaire ak inflation sur les biens et services parce que biens et services yi bul solo sa bopp a chaque fois que ñuy dem day day day am inflation ci kii dafa am benn inflation naturelle boo xam ne chaque année day am ci ci bien biens et yi loolu mooy dem après c'est vrai que vous allez me dire que la monnaie li doon jar li doon jar euh, mille francs dina dina jar avec quelques années deux mille francs kii mais c'est avec plusieurs années après tu vois donc l'inflation est quand même maîtrisée parce que en économie kenn musul taxaw ne zéro inflation dañ naan inflation maîtrisée dañ koy jéem a maîtriser am na économie yoo xam ne dañ la naan seen inflation c'est entre euh, euh, un à trois pour cent ci lañ koy fourchette boobu lañ koy maîtriser annuelle léegi ñuy jouer entre l'inflation et les et les taux d'intérêt et tout loolu moo loolu moo am mais quatre, soit monnaie 80% depuis sa création, il n'y a rien. C est, c est, je, je, me dis que c'est même parfait. Sa création, c'est les années 1700, 1776, en tout cas fin 1700. Donc on parle de siècles et de siècles. Hein. C'est très normal. Alors que Bitcoin, man, je te dis, en 2009, ça, ça coûtait euh, des pennies, 0,001 dollar. Actuellement, je te parle de 2009 loolu ñaata calculer le pourcentage d'inflation bi c'est même plus hyper inflationniste mais c'est c'est c'est c'est c'est c'est énorme c'est énorme loolu mooy ci ci dund nit rek imaginer nga teg ci benn euh, euh, nu ñu koy euh, manque de visibilité benn possibilité que sa sa lépp mën a basculer du jour mais nit ki day dox loolu gi nga loolu économie du leneen lu dul nga xool rek lépp lu muy dox rek mooy Euh, il faut que ñu am benn visibilité mais su nekkee yow da ngay jékki-jékki yow en une journée rek sa say mbir lépp mën na soppeeku de A à Z mais da ngay dof te loolu loolu moo nekk ci crypto monnaie man nag je suis pas en train de dire que c'est pas de bonnes choses c'est des bonnes choses mais que qui demande énormément de régulation mu ànd ak euh, les préceptes de l'économie ñu mën a dem ak moom mënuñu ko bàyyi rek euh, dans des mains de d'informaticiens yoo xam ne ne parce que ñu ngi wax bitcoin mais soo waxee bitcoin dala naan crypto monnaie suñu paree di wax investissement parce que monnaie en première première kiiwam échange la première euh, fonction am échange la mais yéen soo leen di wax crypto monnaie première fonction bi ngeen di wax investissement ngeen may wax c'est comme si rek instant bi man je désolé mais c'est comme si vous savez pas de taux de quoi vous parlez vous parlez de monnaie soo leen paree première fonction bi bi point investissement la dañ nga investir teg di xaar affaire yooyu amu benn monnaie bu ñuy investir la première kiiwu monnaie c'est de faire des échanges maintenant nag li ngeen di wax ci bitcoin mën nañ ko gis ci yeneen monnaie mën nga di jënd dollar après jënd jaay ko jënd euro parce que cours du dollar wàcc na ainsi de suite nga def nga def xaalis mais loolu du première fonction u kii du première fonction wu monnaie parce que ba pare yéen da ngeen bëgg ba plomber les les monnaies teg bitcoin te xam te soo leen pare li ngeen di li ngeen di wax ci bitcoin yëpp da ngeen ko arrimer ak dollar donc dollar boobu su xëyee yéen ngeen naan gouvernement su xëyee imagine eh, États-Unis xëy ne man je ga kenn képp ku fi indi bitcoin man duma la jox dollar buñ ko arrimer le bitcoin ah, ça vaut rien par rapport au dollar monnaie yëpp def noonu gouvernement yëpp def noonu gëm naa ne day daam parce que man mii duma dem di jënd loo xam ne ne au finish mënuma ko dugalaat ci économie am jël jël ci xaalis parce que dañ ma ne bit benn bitcoin égal à tant de dollars moo tax ma jëm jënd soo ma nee benn bitcoin égal à tant de bitcoin wala tant de euh, xaw ma beneen cryptomonnaie te man xaw ma xale laa koy teg dem sama yoon. Hmm. soo leen gisee mu ñu koy def nii rek c'est parce que waaye am na ñu koy ñoo xam ne ne tout le temps ah mais may wax ni au bout du chaîne laay wax nag. yenn saa yi dama koy wax mais dañ may indi réplique naan non mën nañ ko échanger technique mais au bout du le fait que ngeen koy échanger même soo leen ko échanger après cent ans soo gisee muy continuer parce que après cent sax ki koy mujjee xam na ni que su ko jëlee da koy échanger en dollars pour jot ay dollars moo tax mu kii ko mais su nekkee loolu amatul bout du chaîne man gëm gëm ma kenn dina laale ci ces ces ces crypto là donc moom bu la bëgg ci génnee les états moom. loolu moom beneen wax la te parce que sax yéen soo ne on le centralise pas mais alors que pour pour l'acheter wala def série transaction tu passes par des plateformes ces plateformes là sont gérées c'est pas géré par qui et n'importe quoi soo ma nee nag après minage bi ku nekk mën na miner tout cela mais c'est des plateformes yoo xam ne ne la maintenance la gestion et tout cela c'est géré par un groupe bien défini groupe boobu man gëm naa ni ñoom ñoo centraliser affaire parce que ñoom ñoo mën a def ci lu leen neex ci plateforme suñu xëyee euh, mettre la plateforme down doo gisati sa xaalis mm-hmm. donc c'est forcément géré par quelqu'un maintenant nag c'est quelqu'un ngeen bëgg jël soppi ko ñeneen après vous me dire que waaye minage bi nga fekk day miine fekk am bout d'information et tout cela mais toutes ces informations là à un certain sont centralisées quelque Euh. comme li nga wax ne on peut pas saisir les bitcoins mais on peut euh, saisir les clés privées mais <laughs> au finish suñu saisiree sa clé privée say bitcoin lañ saisir donc <laughs> su nekkee da nga war a am clé privée pour ñu saisir ko on peut pas day mel ni on peut pas saisir ton argent directement on va saisir d'abord ton compte en banque pour après saisir sa xaalis kii tamit lu mën na lu remplacer compte en banque par clé privée ñu dem saisir bitcoin tam donc <laughs> centralisation boobu <coughs> mais mise boobu mënul dañ man gëm mënul dañ parce que on est dans un monde boo xam ne tout le monde peut pas gérer tout le monde peut pas il faut que mu am ay ay ay euh, ay yoo xam ne ci la ñuy reporté wu et tout cela day mel ni ñu kenn xëy rek ñëw ne woy léegi la loi kenn géré wu ko on centre amatul centralisation de la loi doo dem justice di kii kii day ñëw rey ne waaw ci sama ci sama loi rey baax na këla ne ci sama loi lii moo bon ak lii moo baax loolu am na yenn concept yi man dama koy dégg damay bëgg rek xam na ne te man je me dis que on se donne du temps on va voir que une fois que les études de ces gouvernements de ces banques là suñu paree ba comprendre la chose ba ba canaliser ko ba xam comprendre technologie bu nekk derrière je te jure vous allez voir oui des crypto mais très bien gérées comme si rek loolu bu leen ko man du ma ko tàkk rek Euh, mooy économie numérique économie numérique bu muy dugg buñ duñ ne yàgg na yàgg na duñ ne nga démb la du démb waaye yàgg na yàggul ko bu baax soo leen gisee dafa ñëw di révolutionner mais sa a aidé l'économie réelle à à à à pouvoir aller beaucoup plus vite loolu rek la fi à centraliser des choses par l'ordinateur banque yi au lieu que ñu doon yor papier léegi tout est dans des dans des ordinateurs tout est dans des kii yow nga mën a connecté wu ci sa si sa kii gis sa xaalis def say transaction yooyu la la permettre n'est-ce pas je pense que la prochaine étape ça va être les bit les crypto tamit loolu lay dem apporter mais toujours géré par ces par ces entités là mënul mënuñu ko gérer mënul mënul nekk benn gestion boo xam ne ne c'est qui tout le monde à la fois et personne da mën na indi nag plus de transparence yow ngay gën a mën gis say say say say bien à temps réel du gën a a def say transaction heure bu mu la neexee mais quand même toujours géré par des entreprises. ah là là tey on a l'un des plus virulents <laughs> anti-bitcoin que j'ai jamais vu de ma vie <laughs> mais je vais lui répondre bàyyi bi même ma répondre après ma répondre en même temps à euh, Babacar bi waxoon avant moom et il a plusieurs points instant bii nii affaire bi c'est intéressant donc mën nañ ko ne di wax euh, effectivement monnaie ñett fonction la am unité de compte médium d'échange réserve de valeur unité de compte maanaam mën nga valoriser benn affaire avec monnaie boobu noonu tey mën nga pricer benn kër en bitcoin wala mën nga ni sama moto bii nii tant de bitcoin lay jar wala sama dégg naa sax ne am na y a des à Londres yoo xam dañuy jaay yàpp compte du Bitcoin. Donc, SANI, on peut dire que le Bitcoin, tu peux faire ta comptabilité avec c'est une unité de compte. Deuxième bi, moi, médium d'échange. Donc, un truc avec lequel tu peux échanger. Donc, quelqu'un peut te vendre un produit contre du Bitcoin, quelqu'un peut te vendre un service contre du Bitcoin. Donc, remplir na ñaar yoyu non. Et en trois, c'est une réserve de valeur. Alors, Babacar dafa wax affaire bu important mooy c'est volatile. Effectivement, ce serait mentir que de dire que le Bitcoin n'est pas volatile. C'est extrêmement volatile, mais c'est relatif. C'est relativement volatile. Volatile par rapport à quoi Parce que j'imagine que Guy Sunua, il le met tout le temps en parallèle avec aussi, on va dire, les actifs classiques comme les actions, les obligations, et même les produits dérivés et Mais, problème du moins, l'autre sont des actifs classiques, obligation qui se base soit sur la dette, soit sur la création d'une entreprise et tout. Alors que Bitcoin, c'est supra, c'est-à-dire c'est au-dessus même de ça. C'est un système financier à lui seul. C'est un système financier à lui seul qui attire xam, différents types d'investisseurs. Tu as les particuliers, mais aussi tu as les investisseurs institutionnels, ils ont ñom ñoy spéculer. Moi, j'ai fait une analyse sur, <coughs> pardon, influence ou acteurs institutionnels, ils ont prix au Bitcoin. et dites-vous que pendant toute l'année 2020 bi nga xamee ni kenn daanu woon dégg ci ay waxu bitcoin eux ils étaient en train d'accumuler pendant un an en achetant des bitcoins auprès des mineurs mais aussi di jënd bitcoin auprès de nit yi nga xam ne ils ont abandonné genre dañ leen di jaay acteurs institutionnels yi nga xam ne ils disposent de plusieurs milliards de dollars de trésor dañ doon jënd tranquillement pendant un an qu'est-ce qui s'est passé bu ñu paree jënd et Alvin dugg maanaam la division par deux de la rémunération des des mineurs dañoo créer benn effet de nouvelle maanaam dañoo commencé fay ay influenceur entre guillemets yoo xam pardon dañuy dem si ay page euh, Telegram dañuy dem ci Twitter dañuy dem ci ay page Facebook et cetera di waxaat ci Bitcoin nit yi fàttaliku Bitcoin en même temps ñoom ils commencent à fair augmenter le prix comment en achetant encore plus Donc, nit yi lan lañ ciy gis ñu ne ah attends le bitcoin il y a un an il était à 3000 dollars là je le vois à 5000 dollars c'est en train d'augmenter man tamit damay jënd et donc ça crée ce qu'on appelle un FOMO fear of missing out maanaam da ngay ragal a bañ a jël train bi donc da ngay ragal da ngay ragal a bañ a voilà jënd quoi. et investisseurs institutionnels yooyu noonu suñu créer mouvement yooyu noonu on a man j'ai fait cette étude là recherche Google yi ça atteint l'indice maximum mooy 100 mooy instant boobu noonu tout le monde fait des recherches sur. Bitcoin instant bii nii on vit la même période et ça quand ça arrive ba investisseurs institutionnels yi tous les bitcoins qu'ils ont accumulés pendant un an lu ñuy def mooy dañ koy jaay étant donné donc qu'ils le jaay euh, vendent pardon affaire bi ce n'est plus aussi rare qu'avant ba prix bi day baisser tout simplement donc le bitcoin si c'était seulement limité aux gens quil l'utilisent au jour le jour ce serait pas aussi volatile mais il faut savoir une chose Les États ont tout fait pour combattre le Bitcoin. Ça, c'est une juste une autre méthode pour aussi le combattre, quoi. Babacar aussi a parlé de intervention des banques centrales. mais intervention des banques centrales boobu noonu moom moo ñu indi fi ñu nekk tey maanaam après la crise de 2008 les banques centrales européennes et la Fed aux États-Unis dañoo commencé quantitative easing maanaam benn on va dire benn période la boo xam ni depuis maintenant sept ans six ans sept ans chaque mois ñaari banque yooyu noonu à leur tour et de leur côté dañuy jënd pour plus de soixante milliards de dollars voire soixante dix quatre vingt milliards de dollars d'actifs sur les marchés financiers donc ils créent de l'argent à partir de zéro ñu ne banques yi générer leen ay obligations wala jaay leen ñu seen actifs yoo leen di détenir doo leen ñu ko jaay sax dañ leen dañ leen koy jox en garantie ñu jox leen xaalis maintenant moi la question que je vous poser et j'espère que Babacar dina ko mën a tontu après état yi ak banque centrale yi au lieu ñuy sauver banque yi banque commerciale yi je veux dire comme ay Lehman Brothers en 2008 lu tax du ñu dem sauver directement entreprise yi nekk en faillite lu tax duñ dem dugal xaalis bi directement dans l'économie France instant bi ni il l'avait testé pour crise u kii bii nii euh, corona bi ñu jox xaalis gars yi dañ leen ko abal donc les gens sont encore plus endettés qu'avant et puisque les gens sont plus endettés qu'avant et que dañ leen doon nax entre guillemets parce que dañ leen jox xaalis bi ne leen vous pouvez rembourser dans un an deux ans quand la crise sera passée mais dans un an deux ans est-ce que l'activité va reprendre tu donc interventionnisme banque centrale yooyu noonu moo indi crise nii yëpp ñu xam et quand on parle de réglementation instant nii la réglementation bancaire a atteint ses BAL 1 BAL 2 BAL 3 FRTB pour les marchés financiers am nga réglementation bu dul jeex mais ça n'a pas empêché que les banques tombent en faillite les unes après les autres te instant bii la crise qui va venir là ça va même pas venir d'une banque au final ça venir de Evergrande fële en Chine avec le BTP donc loolu déjà c'est c'est encore autre chose mais si tu n'as pas l'or ou bien le bitcoin pour te protéger tu fais comment sans vous avez parlé de or justement amoon na benn période boo xam ne détenir de l'or c'était illégal aux États-Unis amoon na benn période sax état bi dafa ni del da ngeen may jox yéen ñëpp seen or léegi état bi moom mooy seul garant wu or parce que c'était le système de l'étalon or dollar bi c'était arrimé au prix de l'or tu mais loolu qu'est-ce que ça am amené tey amul kenn koo xam ne mën nga yor say lingots d'or yow yaa ko moom yaa ko jënd sa alal la nga génn ak moom dëkk bi c'est mais loolu c'est pas un problème de liberté tey kenn mënu laa tere nga yóbbu fu la neex say bitcoin et donc loolu ça me permet de transiter si intervention wu Souzy et je vais faire très rapide comme ça ñit yi mën a wax aussi tu as parlé de bannissement bitcoin ci dëkk nga ni on parle tout le temps de bitcoin par rapport au dollar dollar dollar mais loolu c'est parce que c'est on dit c'est notre premier réflexe mais le bitcoin il est valorisé dans toutes les devises dollar su existé tul tey mun naa la wax bitcoin ñaata lay jar en euro euro su existé wul tey mun naa loo benn bitcoin ñaata lay jar en franc CFA en yen en tout ce que tu veux et que suba États-Unis su jékki-jékki woon ne amatul genre amul kenn amatul droit utiliser bitcoin aux États-Unis mais loolu du tere bitcoin dund la preuve ça s'est passé là cette année en Chine un moment donné la Chine c'était 30 pour cent des mineurs de bitcoin dans le monde la Chine foofu la su jóge foofu lay exchange yu mag jóge foofu la la plupart des utilisateurs les premiers en tout cas de bitcoin foofu lañ jóge mais gouvernement chinois bi comme chaque année depuis la création de bitcoin dafa jékki-jékki ne voilà on bannit bitcoin mineurs yi vous sortez du pays et cetera ça n'a pas empêché bitcoin de continuer à vivre la preuve par le prix par le nombre d'utilisateurs la preuve par le nombre de gens qui sont ici dans cette room donc suba États-Unis su jékki décidé woon bannir l'autre les bitcoins avancés. Et c'est ça l'avantage d'un système décentralisé. Tu ne te bases sur aucune entité centrale, tu vois. Donc, je terminer si bien affaire bi après je jox Babacar la parole. Deuxième bi, <coughs> non, la dernière chose en tout cas, moi je suis d'accord sur toi si bien affaire. Parce que chaque jour dama koy wax fii mooy nit yi utiliser entité centrale yi ay exchange pour mën a jënd ay bitcoin. Les gens qui sont là depuis le début, xam nga pour en témoigner loolu c'est vrai mënuñoo parler de décentralisation pour après di utiliser ay solutions centralisées ça n'a pas de sens et quand tu fais un rapprochement entre le mot de passe de ton compte bancaire et ta clé c'est pas pareil sans que quand on parlait de cette question-là c'était plus par rapport à hacking tey nit mun na ñëw mun installer benn solution ci sa PC enregistré li ngay tapé sa souris sa sa clavier pardon mu xam sa mot de passe mu dugg sa compte mu def benn virement bancaire tey sa bit say clé privée tu as la possibilité de ne pas garder leen si benn système informatisé donc da nga koy bind fenn yow rek yaa koy yor et même su la neexee quand on par exemple douze mots nga xaaj ko ay mots yu bëri nga tasaare leen et cetera donc c'est plus ça kenn du am un moyen électronique informatique pour mën a sàcc c'est qu'il est privé de cette manière-là donc foofu lañ doon waxee quoi donc grosso modo loolu laa bëggoon am comme réponse euh, si intervention à la fois Babacar ak Souzy gars yi je sais pas si vous avez